Coupe d'Afrique des nation bi nga xamante ni ñi ngi ko waroon a amal ci 2023 bi nga xamante ni ci la ñu dëgmal fi nga xamante ni nag mooy ci diwaanu Côte d'Ivoire Coupe d'Afrique boobu nag dañ koy dàq rek ba li nga xamante ni mooy atum vingt 2024 donc kon dinañu xaar rek ñaari at laa tey rek ñuy jubluwaat ci li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique des nation loolu nag ki ko xamle mooy ki nga xamante ni mooy président CAF bi nga xamante ni sax ci ab janoo bu doon amal ak taskatu xibaar yi ci fi nga xamante ni mooy diwaanu Maroc fa la ko xamlewee li waral lu ne mel nag du leen rek lu dul ginnaaw ab réunion boo xamante ni amal nañ ko ci seen biir ñu gis ni daal dàq ko mooy li gën ndaxte kat weerum juin ak juillet taw yu xaw a tar mooy am ci fi nga xamante ni mooy ci diwaanu Côte beneen bi si yo bi si topp itam muy xamle ni daal ci janvier bi nga xamante ni moom la ñu weesu ci Coupe d'Afrique bu mujj bi ñi nga xamante ni nii ñooy joueurs yi dañu amoon ay jafe-jafe ngir rek ñu daal di leen bàyyi ci seen club yi ñu mën a dem. ngir defendre seen couleuru dëkk kon nag lu am ba des daal mooy que ni kan bi nga xamante ni waroon na am 2023 ci Côte d'Ivoire dañ ko rek dàq ba li nga xamante ni mooy atum 2024